Vous vous que vous dans une suñu vidéo vous abonner, liker partager parce que ça nous aide vraiment. Nous nañ jël courage à demain. mains. Mhm. Arabie Saoudite dana ca courage non, bien sûr Non, non, non, non non Iran Arabie Saoudite non, mhm. dafa am ay ay ay réew non, non, euh, occidentaux yi dafa am man soo gisee ma naan may may wax souvent ne j'ai tellement de euh, de respect pour ce grand pays là l'Iran mhm. mooy mais mais réew moom li mu li mu daj ndax américain yi kenn mënu la ko wax mhm. mais teewul ba léegi fa mu taxaw la taxaw mais Arabie Saoudite gii nga xam ne man dama jàpp ne d'ailleurs ñun ñëpp sax euh, loolu la ñu jàpp mhm. Arabie Saoudite mooy lépp bu ñuy julli fa la ñuy jëm Euh, bu bu koor amee ñu ne Arabie Saoudite woor na nañu woor mhm. su wori jotee ñu ne Arabie Saoudite wori na nañu wori mhm. Arabie Saoudite googu jamono jii nga xam ne ñoom ña ngay rey julit ña ca Palestine mhm. ñoom li ñu tal waa Arabie Saoudite googu mooy ay championnat yi football. Mhm. di fay ñoom Sadio Mané ñoom Ronaldo ñoom Neymar ak ay milliards yi milliards yu dul jeex. Mhm. man liir naa barki démb lu ma naqari lool ñu ne Arabie Saoudite xam nga moom Arabie Saoudite duñ nangu kenn di fa am coro di ko fa di fa dëkk ak moom ñu ne Neymar moom defal nañ ko exception pour mën a dëkk ak coroom parce que Neymar kam kamiy kamiy dundal takku ko Arabie Saoudite moomu laa ne su fekkee ne ci moom la ñu yaakaar ngir mu yëkkati baatam di xeexal waa. Euh, Palestine dañuy euh, jullit ñi dañuy nax seen bopp gis nga Pape. li julliti Sénégal yii di ñu déglu war a yëg. Mhm. julliti àdduna bi yëpp yëg ko. Mhm. yàlla doon na baax ñoom ñoom ñu dégg wolof ba dégg li may wax. Mhm. mooy jamono jii ñuy wax nga xam ne ñi ngi wàcc ñun di julli tàkkusaan Israël blocus la def bande de Gaza. blocus boo xam ne kenn du dugg kenn du génn. toutes les minutes ay bomba ngi daanu ci kaw ay doomi julit ay liir ay perental ay jigéen mhm. ay màgget ay handicapé ay gumba mhm. kenn mënut a génn fi nga xam ne fa nga nekk ca fa nga toog mhm. Israël tiim leen ki bomb bërki démb ba léegi tey jii nii sànq maa ngi koy gis ci France 24 blocus total la wax ba pare premier ministre Benjamin Netanyahu nga xam ne moo gën a bon ci ñuy dox ci kaw suuf tey wax ne dina def li mu mën ngir changer le Moyen-Orient c'est-à-dire que li mu bëgg mooy jeexal jullit ñi nekk Palestine pendant ce temps pendant ce temps réew yi nga xam ne dañu wax ne ay réew jullit lañ te Sénégal gi bokk ci déggoo ci kenn ku ci wax. au contraire keroog ba ñuy ba ñu ba ñu attaqué Charles Hebdo ca France. oui suñu ay confrères journalistes lañu attaqué. rey leen man je me rappelle j'avais écrit à l'époque un texte où j'avais dit ci Walf Quotidien ma doon wax ne nous ne sommes pas Charlie. Mhm. boobu suñu président bi dafa waaxu dem ba foofu marshal leen. ñi mu doon marshal mooy ñan ñi nga xam dañu caricaturé dañu caricaturé Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mhm. tey jii nii à part le Hezbollah euh, le Hezbollah libanais euh, xëy na Iran ak yenn réew jullit yi nga xam ne suivre ma ko trop hmm. déggoo kenn ku wax hmm. suñu réew mii fii bu fi daan toll Sidy Lamine Niasse njëkk a woote ñëpp ànd dem imaam ndaw ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen hmm. tey jii waroon na fekk julliti Sénégal yi ñu ne àjjuma buñ julee tisbaar ba pare ñun ñëpp ci mbedd mi buñ ci mënul daraat ñu def li ñu diine sant naqar lu ko bañ xam ne am na lu ñu naqar mais on fait comme si de ah, tey gis nga yenn presse yi suñu biir réew rek yenn titre yi da ngay tey tey tey tey la la la presse sénégalaise lan lan lay jaay ay Bill Gates saay-saay su bon soosu ñooñ lan lay jaay tey dans la presse Sénégal au même moment bii ba may waxee ak yow nii tàkkusaan di waaj a jot bande de Gaza moom xaw ma nu ñuy def pour julli tàkkusaan mais dana leen jafe. ay bomb lañ leen tiime. dañuy coupé courant coupé ndox coupé courant ndox lépp la ñuy coupé. attaqué euh, hmm. euh, taal euh, centrale électrique tal taal banque yi taal lépp pourquoi. parce que bande le Hamas dañu toog pendant des années et des années ñu jàpp doomu Palestine di leen dóor di leen rey la communauté internationale bala boog ñi awa di wax ne tekk waxuñu dara. Hmm. ñu xëy suba. fexe ba def li nga xam ne démb damay liir benn verset wu arxuraan ndeysaan ma benn waaye envoyé nga xam ne yàlla moom lépp lu mu wax di ko gis euh, malgré moyens yi nga xam ne yëpp moom la Israël tegoon pour di surveiller son territoire mm-hmm. nga xam ne yow sa ñaq sax bu rombee kamera ñu ñu xam ne mm-hmm. romb nga fa malgré tout ça la Hamas bëtt ko dem fekk leen fa ñu nekk duma leen rey ci ay nit jël ci ñeen ñi jàpp leen otage loolu moo leen naqar yi ñu nar a jeexal la bande de Gaza ñoom Israël liñ nekk ña nga ca France euh, euh, Amérique ak ñi leen souvenir lañ nekk ña de. julliti yi ñoo et ça. que position Sénégal ci benn communiqué bu mu génn mel dafa jouer rôle équilibrisme de position euh, pour Palestine mais aussi de position contre Israël. mais mais nga ma Sénégal. Mm-hmm. depuis Léopold Senghor. Mhm. ñun ñooy yor baatu Palestine. ci Nations Unies. depuis Léopold Senghor. fu ñu tuddee Palestine nga dégg baatu Sénégal mais léegi on te fait un communiqué laconique là comme tu dis équilibrisme.